way leen di tek seni gër di tek seni nok ci sen bu mag bi di ñingen tv ak ñingen tv moomeelu melu wi ñi tv kum ko tagona ak yeen de len abonné partager bes ko lo notification bi ngir lepp lu ñu duggal ngeen njëkk ci jot ak ñingen tv moomeelu melu wi mi nga xam da nga bëgg señ borom subhanahu wa taala di la bété xéewal ak teranga wala nga ne ci xat-xat bëgg sa borom jappandara la ko mu tegg ko ci yow ci walu xéewal nak moma ma wax da nga def sa bo julé jee ba wara teud nga jang benn wala boog ñetti faatixatul kitaab muy alhamdulilahi rabil alamin ba ca wala daali na ga ba pare nga jàngat ñetti salaatul fatiha muy allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfaatixi lima uxlixa wal xaatimi sabaxa ba mu jeex tàkk ñetti yoon ba pare nga jàng allahu muhammadu 158 moo jàpp loolu xam nga allahu muhammadu moo jàpp 158 allahu samadu jàpp 170 bo jàngee allahu muhammadu 150 bi pare da ngay jàngat allahu samadu 158 doo ko jàng li mu adadam allahu jaamihu jàpp 180 waaye doo ko jàng 180 da nga koy jàng 158 momit mu jàpp euh, am na benn tarsam bu mu bu mu bu mu jàpp soo paree bi nga xamee ni jàng nga allahu muhammadu 158 allahu samadu 158 allahu jaamihu 158 ba pare da nga doog a jël def allahu muhammadu sarifun bil jamila allahu muhammadu sarifun bil jamila moom it incha allah rabbi nga jàng ko 1524 1524 ngay jàng allahu muhammadu sarifun bi jamila ba pare nga tëjee ko ñetti salaatul fatiha incha allah rabbi yoon woo gaaw a ngi noonu ci wàllu dekkante xéewal wu tag incha allah rabbi boo demee nag ba waxtu yor yoru ajjuma da ngay toog ci yoyor aljuma bi nga jangat allahu muhammadun sarifun bil jamila nga jang ko limbu mag bi muy 1524 kese su boba nak do ñewat ci fatihatul kitab jak allahu muhammadu ja allahu samadu ja Allah jam dirit da ngay jàng ci yoyor aljuma bu nek nak allahu muhammadun sarifun bil jamila nga jang mom inshallah rabbi so pare teje ko ñetti salatul fatiha inshallah yonu yoonu wërsëg mbokki wante yonu xewal ngok timit inshallah rabbi kon mi ngoog bu boko defé ñu bokk xel bu baaxa baaxa baax insha allah rabbi yoonu xéewal nga nonu yoonu mucc nga nonu waye yoonu mucc la tamit mi ngi nonu ki nga xamne dafa amé ay jafé jafé ci walu wërseuk bëgg sa borom dimbali ko ci waye ki nga xamne dafa kak insha allah benn yoon nga nonu bo xamni bu ko dé jëfëndiko rek suñu borom ci mbaxam ak katana mën nako daal di dimbali ba lepp lu muy yottu ci walu wërseuk mu am ci lu kaw ñu allah rabbi insha allah kon yoonu day war nga nonu nak insha allah rabbi insha allah rabbi kon mi nga